sante Viviane xeeb xoolal Viviane su ko neexoon bañ na ko ba ñoom Mame Ndiaye ñi nga xam ne sax at bii mhm. la ñuy doog a génn at bii la leen àddina xam sax ñoom la mhm. jël teg ci kanam pour wan la ne simplicité am ak mhm. ak ak ak simplicité am amut terewut kenn déggoo ku ne ñu ne Viviane dàqalu na nit wala Viviane xeeb na nit wala Viviane li moom naturel nii la mosamel gis nga nit na su su su su koy su xolam rafetee rek day am jàmm xewam lii. mu mhm. gis amul benn influenceur bu toog ci internet bi bu ci wax lu ñaaw. déedéet man bàjjenu gox bi nga xam ne su xew eh? amaan maa génn taakale wax gis nga ma ne dama jënd glace parce que dama kontaan. Eh? <laughs> man dama kontaan sama xol bi dafa mel ni xolu yaay Sadio Mané ma ca ma ca ma ca dëkk ba ca Casamance. man sama xol mel ni xolu yaay Fally mel ni rabu àll xale yëpp génn ñoom daba sey ay Aïda Samb génn def lu rafet ñoom daba daba sëy mi nga xam ne amoon na ngant barki démb la jógee màkk ko neexoon ne du téyeti mi koro tant que amul quarante jours ah waaye ñàkk ki ñaan dem yéeg ci kaw stade bi wëy Sidi Diop sama doom ja taxaw képp kuy artiste bu baax te am te am xol bu rafet xoolal Fatou Gueye ni mu taxawee. baax taxawaayu Ndeye Marie Ndiaye Gawla la taxawee. taxawaayu Ndeye Marie Ndiaye Gawla la taxaw ba pare Pape Cheikh Diallo dagg biim jóge ba Amady bàyyi soxlaam yëpp dem fekk ji Viviane. barki yonent bi. xam nga ne lii biisu ngoone suma waa ji xoolal biisu. man barki de bi ma gisee biisu ngoone dama jooy. baa xam ne day laa foogoon dafa dugg Sénégal gisee ko ko jaay. mbaa xam nga ne ceinture or bi. Eh. laaj gisee ko ko jaay. Eh, dinaa la wax dara. est ce xam nga ne laaj gisee lum jaay griffe la. Siré Adja Lo. lum jaay griffe la te lum jaay doo ko gisaat oram la te bëriwul wax bokkut ci jaaykati or yi téesante bokkut ak jaaykati or yi lay lebal su paree uh, uh, uh, woo fukki nit vocal leen tiin moom laa gis ci ay musique gis nga gis nga gis nga su gis nga gis nga am na xale bu jigéen bu rafet Ketchup Ketchup nga ko filmé naan ko yow mu rafet mi foo nekkoon Marisane te doon te seeg maître Diagne mhm. te seeg léegi maître Diagne gis gis nga Marisane moomu nduuréen la doon sëy comme Viviane njagaa ko mhm. mu am ci benn doom benn doom boobu rek la ko yàlla may mu am ci benn doom bu góor moom Marisane waaye ba mu jàppee mook Viviane ba tey bàyyiwut déedéet wax la ne ñoom seen bopp ñoom ñu fa nekk ña xoolal maami Camara veste bu rafet bi mu def. xoolal jabari buuba bi. ku lim def ku ñàkk ña ku ku ku ku soxor mënu ko. nag am damaa bëgg bàjjenu gox dama bëgg nga insister foofu mais jabaru buuba bi. Eh. personnalité. moo baax xale bu man man dama kontaan indi ay kalan wala mu indi ay. lu muy eh, dafa takk bu dëgg dama ne la jabaru buuba bi toj na dëkk bi. jabaru buuba bi lu mu baaxoon na ko yokk dama ne la xew mi déggoo li ma roksu fii ba 40 ans. Viviane amul. mu def kenn lu ko waay def waaye yow seetaan nga réception bi démb Rakso. waa yow doo ma bàyyi te du moom dafa jël. Ah, galaamu man dama foogoon man dama foogoon man dama foogoon ne waa Yves Saint Laurent ñoo woote ñoo woote lii ñoo woote. dama cee jooy man festival laa ko tegoon am dama cee jooy ba dagg nelaw ma maa ngi nii damaa jooy. man dama foogoon waa Yves ñoo woote. Mhm. Christmas laa foog ne ñoo woote. muy dox ci lu xonk la fu falaawo yee génn. ma jooy dama ra jooy ma dama jooy. dama man dama ah. jooy ba dagg am. maa bëgg lu baax waay. ku mën lu baax. lépp ah, ñëpp a jooy euh, kenn nelawul daal xoolal xam nga luñ koy ñaana yàlla uh-huh. na koy yàlla lafal cat. ba li nga xam mm-hmm. ne xoolal. Mm-hmm. li nga xam ne moom la dese bi yàlla bu ñu ci jënd ordonnance mu àggaleeg sago mu muur doomam ci jàmm doomam fii ci jàmm am fa doom yu barkeel yu ko mën a jëriñ. ñëpp a kontaan. barki yonent toj na fi de. kuy kuy nit ku baax. xoolal mm-hmm. di nga ne Viviane toj na fi. xaw ma nag soo du nit ku baax. mais nag am ma wax la leen Viviane nit ñi dañ koo umpale. gis nga Viviane. lu baax la boo demee ci daara yi. barke Seydina Muhammad chaque fin de mois ravitaillement am dugg fa ay yërëm nga dem ci. dama ne la uyu ma uyu ma. Viviane ci boppam xam nga ne kaay mox la gis nga mbàkk mbàkk yi doo leen gis seen. Mm-hmm. soxna Wali Kebe. mu sëñ Bass Abdou Xaadir yaayam da koo yónni. ndeysaan. di doomu sëñ Saaliw. mu ñëw indi teraanga gis na nit. loo nekk gëm ci te bés boo toogee lépp dina la fekk si. barke yonent bi. Vivi démb dafa toj àddina. wallaay ñett fan yi Vivi yëngal na Sénégal ay noonam nelawatuñ. ñu naan tey une ba pare mu baax nag. ñett fan yi Vivi ñëw mu àgg. Muhammad xew mi. ay kër rek laa bëgg a dégg tubaarikàlla ci doomu Philippe Chidid Ndour gi Viviane dëbb na dëkk bi c'est la première fois l'histoire Sénégal l'histoire Sénégal c'est la première fois xale yi ñëw ñi takk ay jamaa ñi takk ay Swarovski xale yor ay saagu Hermès vingt mille euros trente mille euros wuya wuy saa نو من خمون دك بيو نيلا مخالي وخالي ديم بيو ملني وا ليغي لي من دا ما بغا خم وا ليغي ين لي لان لني ين لو لان لنونو خالي ملني كو جفرو ديت ген اي بيزو جماع ين اني تايم رين ين اي كولية جماع ني خالي دي ناو تي اير بي نيور اي ساغو ارميس مي يو فينيس ندور جفيتا فرابة إيه هين فينيس مي فينيس ندور جفيتا فرابة يو فينيس anytime nga yor ay saagu vingt mille euros Hermès nga xam ne am xaalis sa taxul nga jënd ko c'est des rendez-vous de ça ak date de ça eh damay laaj ndax saagu Vénus bi yéen laa wax ndax yéen laa gis ngeen ko saagu Vénus bi pour yéen ñi xamul vingt mille lay jar loolooy Hermès Vénus Vénus Ndour macha allah saak boobu mooy Hermès. c'est les connaisseurs connaissent. C'est l'argent qui parle, des vraies choses. Je n'ai pas dit de l'argent là. c'est des vraies choses, c'est de là. Le goût de l'argent. C'est ça qui est ça, c'est ça qu'on dit là. Pas de bep bep, pas de gnoc gnoc, pas de bracata. Ya. C'est de ça qui est ça. Là. saak boo xamante ne mën naa jënd kër xale yi démb ay bisu jamaa yoo xam ne lañ doon takk nga xamante ne barki Seydina Muhammad mën naa jënd kër xale yi tey xale yi ay bisu jamaa nga séen rek muy tàkk di melax ay Swarovski Swarovski la xaw ma non Clara su fi génnatee yow man dama koy mbëkk Clara yow ti ti ti et les soucis de nag damaa yuuxu lan ngay wax foo ne dangay laaj wala kon wéroo laa ilaha illallah kalaaraa barki Seydina Muhammad xol yépp la seddal kalaa kalaa kalaa kalaa xol yépp la seddal xale yi démb ay savaruski lañ doon takk barki maam Cheikh Ibrahima fa Lamp Kalaraaw ak Vénus gañe nañ bureau de vote yépp xale yi démb mbaa xam ngeen xale yi di waaye yéen ceinture or Viviane bi ah, ak kii bi kii bi tamit kalaaraa ceinture oram bi ak Zeyna ceinture or bi nga xam ne moom lañ wëndaayal wën wëndeelee jàllaabe bi non non Vénus n'a pas de lool Vénus n'a pas de mbarakata rek n'a pas de bépp-bépp or bi nga xam ne naa moom la wëndeelee jàllaabe bi ak biisu ngoone ceinture oram bi du ngeen ci wax ak ceinture or Clara nga xam ne moom lañ wëndeelee seen jàllaabe yi waa léegi du ngeen ci wax ceinture or nga xam ne gën ndaw gën a ndaw 22 millions 25 millions Maroc nga koy jënde wala Dubaï sarab ndayu li lii jar naa liggéey ba dee njëkkate xale yi nii lañ toogee seen ruq yu toog ci lii xale yee toog ci lii aram xanaa gisoo bi gis naa Bijou ngoone koy waxal ma gis Bijou ngoone di mel ni vaiday barke yonent yàlla Muhammad xale yi démb comme tàngal gis naa ceinture bi bouche bekk ceinture or Zeyna ceinture or la takk xam nga kenn yëngal la ah? xam nga boo bonee bon nga rek mais boo baaxee kenn mënu laa tere baax mais boo bonee kenn mënu laa tere bon mhm. mais sunu borom bi daf ñu fee nyu, ñun mhm. pour ñu tracer mu rafet mhm. gis nga pap sama yar ma àndal noonu laa moo sama samay doom pap xam nga lan moo gën a neex tey nit mënoon naa génn wax ma lu bon xam nga liñ wax ju bon taxul fenn nga génn yow fayu waaw waaw bu fekkee ne yow ku la wax lu bon rek nga génn fay ku la wax lu bon nga génn fay bu yàggee bu yàggee nga mel ni ñoom di et puis da ngay mujjee sonn sax waaw da ngay sonn mhm. pap da ngay mhm. sonn et dara jaru ko fi mhm. man li ma tal moom mooy sama liggéey bi nga xam ne moom laa commencé depuis quatre-vingt-dix-neuf ba jamono ji ñu toll nii du ma nangu kenn ku ma ko yàqal